ñuy dalal gan gi nga xam ne moom mooy Amadou Moustapha Guèye jiite euh, Ligue sénégalaise contre le tabac jamono ji nga xam ne ñoo ngi màggal tey euh, bés bi ñu la xeexu euh, cigarette ñu lay nuyu sëñ bi Guèye Euh, soxna si maa ngi lay euh, delloo di la ziar. di mbégte euh, dalal la tey bés bi nga xam ne comme ni ñu ko waxee xeexum lii di cigarette la ñuy xeex yéen ngeen taxaw ci liste am xeex gi nga xam ne yéen a ngi koy def boobaak léegi tey ñu gis ne ñu ngi màggalaat comme ni ñu koy defee at gu nekk li nga xam ne mooy bés biñ koy xeex waye tey lan mooy lekk yeneen manifestation yi. Euh, soxna si maa ngi lay gërëm encore euh, li wutalee euh, manifestation bi célébration bi ak yeneen célébration yi mooy que at mi dafa tombé ci situation boo xam ni ñëpp xam nañ ko mooy que mu am benn genre instabilité boo amoon ci au niveau de de la tutelle du ministère de la santé et de l'action sociale. Mm-hmm. ba noppi ñu ñu ñu gis aussi ni que xeex bi dafa am dafa jël beneen dimension. Euh, parce que xam nga ren euh, organisation mondiale de la santé. Mm-hmm. Euh, dafa dafa comme thème tabac et environnement une menace bon tabac une menace pour l'environnement. Mm-hmm. waaw parce que parce que ren moom ñëpp xam nañ ni que euh, thème boobu thème bu am solo la parce que euh, addina bi yëpp moo moo jànkantool benn difficulté euh, ci problème mu environnement ak problème mu climat. Mm-hmm. te te ñëpp xam nañ ni que lu mel ne ñi nga xam ñoom ñooy defar cigarette. Mm-hmm. ñooñu am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy parce que ñoom dañuy defoon def loo xam ni par exemple comme ay dat garab yoo xam ni bu bu continuer Euh, euh, dana am euh, conséquence sur sur le climat. Mm-hmm. ba noppi dana am conséquence aussi sur sur l' économie en tout cas les économies économie pays yëpp. Mm-hmm. ba noppi cigarette dafa nekk loo xam ni nit ñi dañ ko war a taxaw xoolaat ko. Mm-hmm. parce que ñëpp xam ni que tuxkat yi bu ñu tuxee ba noppi. dañuy jël seen ay mégo di ko sànni fu nekk. te mégo yooyu daf mën na dem bu dugg ci ay ay ay places yoo xam ni. li nit ñi di jëfandikoo comme ay ndox daf daf ci daf ci daf ciy dem bu fa mm-hmm. demee mm-hmm. dafay créer situation yoo xam ni euh, après nit ñi ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy gën a euh, ressentir euh, parce que mégots yi dafay dem ci géej gi dafay dem ci ci lac yi dafay dem ci ci fleuve yi mm-hmm. dafay dugg fefe foo xam ni aussi nit ñi foofu ñi nga xam ne seen ay lekk foofu lay gën a jógee mooy ci mbay mi daf ci am ay conséquence Euh, moo tax loolu nit ñi gën ci gën gën ci gën a taxaw loolu moo tax euh, vraiment euh, thème mu année bi mooy le tabac une menace pour l'environnement nekk benn thème bu am solo mm-hmm, mm-hmm. ñu wax ci loi bi parce que depuis 2014 ñu ngi ko voté ci même réew waaye tey boo doon xayma lan lañ ci mën a jàpp ndax am na ay avancées wala ndax am na tamit ay manquements waaw xam nga ñun en tant que Sénégal ñun mm-hmm. nous sommes un pays pionnier ci lu bëree bëree bëri. Mhm. Euh, ba 2014 bi nga xamee ni euh, ñun fexe nañu. Mhm. ba Sénégal am loi euh, vraiment ñëpp a ko rafetlu woon. Mhm. ñu rafetlu ko Sénégal nekk ci kanam. parce que loi bi aussi ak lu ñu ci mënti wax loi bu baax la franchement il faut que ñu xam ni benn loi en Afrique gënu suñu loi. bien que ñu soññoon bi ñu koy am. amuñu ko ay ak ak les moyens yi nga xam ni moom la ñeneen ñi am. ñun tey en Afrique. ñi ñeneen ñi nga xam ne ñoonu ëpp ay moyens ñun li ñu am ci résultat ñoom xëy na ñoom amuñu ko mais xam nga Sénégal problème bi fi nekk mooy euh, vraiment il faut le dire dañuy voter ay loi mm. mais souvent application bi dafay am problème du du rek loi anti tabac du Sénégal moom moo am problème ci côté boobu mm. loi yi ñu fi vote yëpp yu bëri amuñu sax un début d' application mm. ñun sax jéemoon nañu commencé appliquer mais on s'est rendu compte que depuis cinq ou six ans. Mmh. franchement il faut le dire avec la tutelle bi fi nekkoon ñun vraiment gisuñu benn avancée gisuñu benn jàppale gisuñu benn volonté politique parce que volonté politique mooy tax nga mën a appliquer loi. Mmh. volonté politique bi moo taxoon ñun Sénégal ñu amoon une loi tout simplement parce que le président de la République avait accepté. avec euh, vraiment l'accompagnement de madame Awa euh, Marie Coll Seck. Mm-hmm. ñu jàppale ñu pour ñu am loi ñun ba fi Eva Marie Coll Seck jógee dañu gën a dañu gëj a sentir un soutien de l'État du Sénégal loolu il faut ñu am le courage de le d'accord kon lan mooy manquement yi lan ngeen jàpp ne euh, moom moo waroon am euh, ba ñu voté loi bi te amul. waaw sari manquement yi mooy que c'est-à-dire volonté politique bi fi nekkoon moo fi nekkatul. amul tey jii tey jii loi bi dañ ko voté mais application bi dafa sooxe. Mm-hmm. tey gi Sénégal foo duggu yaa ngi gis nit ñaa ngi tox mm-hmm. ci bar yi restaurant yi foo dugg nit ñaa ngi tox c'est-à-dire loi bi respecté wuñ ko. Mm-hmm. léegi nag dama bëgg mu leer ci bopp nit ñëpp. loi du société civile moo koy appliqué état moo koy appliqué ñun li ñu mën a def mooy que ñu ànd état pour application bi mën a am. ñun amuñu police amuñu gendarmerie. donc ñun li ñuy ñaan mooy que ministre boobu bu bees bi ñëw fii muy euh, euh, Marie Xemes mhm. mu inscrire dans la même dynamique bi nga xam ni moom la Eva Marie Coll Seck nekkoon mhm. bu ko bi nga man leer na moom bu inscrire ci dynamique boobu surtout que moom médecin la daañu avancer Euh, daañu gis résultat parce que ak loo ci mënti wax ñun nous sommes une société civile engagée nous sommes une société civile euh, vraiment euh, bien outillée parce que mm-hmm. ñun société civile bi ñu am même en Afrique sax xëy na ñeneen ñi amuñu ko. Mm-hmm. donc ñun li ñu ñaay moom li ñu ñaan mooy que état bi. Mm-hmm. vraiment changer de fusil d'épaule. alors ñu mën a taxawaat parce que ñun suñu engagement ñun changé wul. waaw problème bi kay mooy au niveau de l'application mooy que état bi xëy na quelque part moo moo moo xaw a taxaw. léegi nag am na aussi beneen affaire boo xam ne il faut ma signaler ko mooy que depuis trois ans nous avons un décret bi nga xam ne moom moo war a génnee cigarette ci boutique yi parce que mhm. Sénégal li fi am mooy mhm. koñ boo taxaw gis nga benn table buy jaay cigarette wala euh, devant les écoles dañuy jaay cigarette mhm. wala devant les restaurants dañuy jaay cigarette loolu ñu considéré ni que loolu li ko mën a régler mooy euh, décret bi nga xam ne ñoom dugal nañ ko ci du gouvernemental bi depuis trois ans que mënul avancé parce que buñ ko présenté woon président de la république dana ko signé te bu ko signé kenn dootul mën a jaay cigarette fenn ci réew mi ci yenn conditions yi dañ naan y des points de vente entre les points de vente voilà la distance qu'il faut avoir comme ni pharmacie yi nekkee Sénégal mm-hmm. ñu ñu am ay distance pour mën a jaay euh, euh, médicament mm-hmm. Mhm. loolu loolu c'est important mais on sent que quelque part il y a une main invisible qui est là qui <laughs> freine les choses. ñun loolu ñu mën ñu ko comprendre ba noppi aussi. Mhm. mu am mu am beneen beneen arrêté boo xam ne aussi dafa war a régler le problème de la chicha. d'accord chicha mooy. loolu nga xam ni moom la xale yu xale yu ndaw yi tey yi di di di jëfandikoo. te jàpp ne tendance la. dans le Sénégal aujourd'hui rien oh, euh, euh, que à Dakar y a plus de quatre cent points de yoo xam ni c'est des euh, c'est des salons à chicha. Mhm. nga xam ni ay xale yoo xam ni ay moins de dix huit ans moins de vingt ans moins de vingt cinq ans ñoom ñoo fay daje di ko tux Mm-hmm. loolu dafa nekk lu am important loo xam ne aussi buñ ko arrêté wul bu ëllëgee. Mm-hmm. daañu fi gis fii benn flambée de maladie yoo xam ni ci loolu lay jógee parce que da gis benn point boo xam ni. Mm-hmm. vingt vingt vingt xale vingt jeunes ñoom ñoo fay dajee ñu ñu tegal leen benn chicha chicha bi benn pipe la ñuy utiliser ñoom ñëpp da ngay tox jox kii kii tox jox kii kii tox jox kii su fekkee am na kenn ci ñoom koo xam ne am na feebar boo xam ne dafay wàlle mhm. su boobaa ñoom ñëpp ñoom ñoom ñoo koy jël donc vraiment ñu dañuy interpeller aussi les parents ñu wax ak seen ay doom mhm. ñu ñu arrêter de fréquenter ces lieux lii yi nga xam ne dafay am chicha chicha moom dana yàq réew mi euh. parce que tout simplement aussi mhm. euh, ma ma ma terminer foofu rek waaw nit ñi dañoo war a comprendre ni que ñoom xale bu toog toxique si si caa ba doyal. Mm-hmm. mën na considérer ni que sox tux na sans cigarette. kon moo gën a moo gën a am lorange lii di cigarette euh, bu classique bi. mais moo gën a grave et les conséquences sont encore plus dangereuses waaw. Mm-hmm. léegi nag am na yeneen produits yoo xam ne aussi euh, ñi ñiy defar cigarette ñu ngi koy jéem a dugal ci réew mi ñu ngi koy jéem a dugal Afrique loolu aussi il faut ñun ñu taxaw ci il faut que loolu aussi gouvernement bi jàppale ñu ci. Mm-hmm. parce que ñun ñoo décider que ñun dañuy dañuy dañuy défendre la santé de nos populations franchement loolu mooy mooy le combat. sëñ bi Gaye nga foog ne lan moo tax Sénégal tey euh, doon dëkk bu euh, industrie tabac gën a wutali. waaw xam nga xam nga li li li am mooy. Mm. Euh, xam nga dans les pays développés. Mm. mooy les pays les pays européens par exemple. Mm-hmm. ñoom bi ñoom dañuy voter ay lois. Mm-hmm. ñoom bu ñu voter ay lois dañ koy appliquer. tout simplement parce que foofu ku fa feebar état bi da état yi dañ lay faj. Mm-hmm. waaw ñoom xam nañu ñoom lu mu leen di coûter ñuy ñuy faj ay feebar yoo xam ni cigarette moo moo koy indi. Mm-hmm. moo tax ñoom ñuy délocaliser seen ay industrie di ko indi dans nos pays parce que am na pays yoo xam ne amuñu loi. Mm-hmm. bu ñu bu ñu ñëwee par exemple Sénégal bi ñuy indi par exemple industrie bi nekk buntu Pikine muy Philip Morris. Mm. mais amul woon loi donc ñoom day ñëw ci pays yoo xam ne amuñu loi bu ñëwee lu leen neex lañ fiy def. léegi nag bi Sénégal amee loi. Mhm. mais loolu war na mën changer. te loolu aussi état bi ak gouvernement bi ñun daal ñun dañuy interpeller ñun waxuñu kenn. Mhm. ñun ki ñuy ki ñuy interpeller directement mooy le président de la république Macky Sall. est-ce que tamit du xaalis bi ñuy teg euh, parce que nag ñoom it dañuy génne xaalis du looloo waral tey volonté bi ngay wax euh, mu gën a <laughs> ñàkk ci mbir mi. waaw mais attends dama lay bëgg a waxal benn affaire. Hmm. xam nga il faut que ñu xam ni que euh, industriels yi wala yooyu ñoom di ñu jox état chaque année boo ko boo ko dajalee ba dajale ko en taxe. Hmm. mënul weesu vingt quatre milliards. d'accord. mais aujourd'hui il y a des chiffres avérés yoo xam ni yoo na ni que euh, les ménages euh, sénégalais. Hmm. cigarette coûté leen cent vingt quatre milliards. tey jii yow bu la industrie joxe vingt quatre milliards de taxes. Mhm. yow nga faj ay ay ay malades yoo xam ne cigarette moo ko causé à hauteur de cent milliards. Mhm. quand tu fais le rapport mais quelque part ñun on est perdant à tous les coups. Mhm. état bi def ci perdre Sénégal yi daf ciy perdre économiquement suñu ay pays daf ci perdre y a que l'industrie qui gagne dans cette affaire là. donc il faut que ñu xam ne que loolu aussi amul solo donc aussi euh, euh, li nga xam ni ñoom industriels yi ñoom loolu la ñuy teg. comme comme par avant devant l'état du Sénégal ou les autres états mhm. mooy que dañ naan wéy euh, bu ñu dindee industrie bi fii euh, dañuy perdre ay emploi ji nga en tout et pour tout mhm. boo dajalee emploi yi nga xam ne usine tabac yëpp tey ji am nañ ko Sénégal mhm. motuñu deux cent personnes motu motu ko parce que tout est mécanisé tout est tout est automatisé. tu comprends ah. da ngay dugg ci usine boo xam ni ñaari nit nga fay gis ñoom ñooy nekk ci biir usine bi di yi fonctionner donc sur au, au, au niveau emploi amuñu fi benn apport dans nos pays. Mmh. donc franchement il faut que nit ñi gën a yeewu Sénégal gën a yeewu euh, euh, état yi gën a yeewu. Mhm. mais ñun ki ñuy rek directement mooy le chef de l'état franchement sànq yaa ngi tudd ndaw yi di leen artu ci li nga xam ne moom mooy chicha bi ndax dafa loolu dafa firnde ne euh, ñoom ñooy tranche d'âge bi gën a bëri justement ci taux ci ñiy jëfandikoo cigarette. waaw xam nga non seulement chicha bi dafa am dégâts ci ci jeunes yi. Hmm. parce que jeunes yi ñoo koy ñoo koy utiliser. Hmm. mais dafa am beneen phénomène boo xam ne ñun gis nañ ko. def nañ fi étude bu wane ni que tey jii euh, xale yi ñu ngi commencé euh, laal euh, tabac cigarette. Hmm. à l'âge de sept ans. loolu il faut que nit ñi xam ko. sept ans imagine nga un enfant de sept ans bu commencé di tox mais loolu c'est une catastrophe. bu ci bu ci nit ñi jugul bu ëllëgee. Sénégal ak yeneen pays d'Afrique yi daañu dugg ci benn guuta goo xam ne pour ñu génn ci dana difficile trop parce que ñëpp xam ne ne que cigarette euh, feebar yi muy yi nga xam ne daf koy daf koy indi. Mm-hmm. dafa nekk feebar yoo xam ne dafa naqaree faj. Mm-hmm. ay cancer wala yu mel noonu. te mm-hmm. cancer sunu pays yi attanuñ ko suñu état yi attanuñ ko. cancer bu duggee ci benn famille. famille boobu daa ñu a def lépp pour faj ko daa ñu dajal seen ay moyen seen ay ressources. te te ils même pas sûrs que. Euh, euh, loolu yu jéem a faj dana faju ce qui mm-hmm. fait que pauvreté bi nekk en Afrique et dans nos pays su fekkee ni bëgg nañ ko dindi les maladies non transmissibles li nga xam ni ñu ngi fi en Afrique et dans les dans les autres pays. Mm-hmm. ñu taxaw ñu xeex ko. Mm-hmm. te cigarette dafa nekk loo xam ni tey jii boo boole woon li paludisme di rey li sida di rey. li accident de la route di rey. suicide les guerres nga boole leen ci benn année nga boole leen ñoom ñëpp ci benn côté tabac moom nekk euh, gauche ñoom ñu nekk tabac li muy rey rek moo ëpp parce que tabac huit millions de personnes lay rey dans le monde mm-hmm. Mm-hmm. waaw donc donc aussi les organisations qui sont là euh, de santé war war nañu gën a réfléchir parce que aussi mënuñu jël man je ne dis pas que bu kenn jàppale sida wala paludisme mm-hmm. mais mais j'ai dit ñoom ñi nga xam ne ñoom ay trois cent mille personnes lay rey ay cinq cent mille personnes tabac à lui tout seul dirait ay cinq ay euh, huit millions de personnes dans le monde. Mhm. loolu war nañ ko jël aussi en considération xool nañ ko nan lañ ko jëlee en charge. Mhm. yéen euh, ngeen euh, journée la tey la mais yéen apparemment da ngeen di gën a yokk seen i moyens de sensibilisation ci diiru semaine gi. waaw xam nga ñun danu wax ni rek rek journée mondiale sans tabac mais ñun tous les jours tous les jours pour ñun journée mondiale sans tabac mhm. que ñun. tous les jours ñu ngi ci terrain bi ñu ngi dugg fu nekk di wax xale yi parce que mm-hmm. xale yi mooy le problème xale yi si na euh, euh, problème bi du mag ñi nga xam ni tox nañu ba mënatuñoo dem tu comprends mm-hmm. parce que xale yi la ñu a waxal parce que industriel yi nga xam ñoom dañuy defal cigarette ñoom ñu ngi seen ay clients seen ay cible principal mooy xale yi mm-hmm. waaw donc ñun bu ñuy def suñu combat yëpp tey jii ci xale yi lañ ko lañ ko wékk parce que xam na bu ëllëgee euh, xëy na ñoom daanu sauver une frange très importante de la population parce que xale yi ñooy nekk mag ëllëg. Mhm. te te combat bi franchement du suñu combat ñun rek. parce que yow moom di sa combat la. Mhm. yeneen parents yi seen combat la. parce que mhm. ñun ñoo am njaboot. franchement na ci ñëpp jàpp. buñ ci jàppee rek je crois que affaire bi dana baax. te ji sëñ bi euh, Gaye ndax tux bi wàññeeku na ci mim réew. mais tux bi mënul wàññeeku dans mesure où mais bi ah, appelé parce que ñoo ngi def ay sa ñoo ngi def ay mesures euh, drastique euh, ñoo ngi gën a yokk euh, li nga xam ne mooy taxi yi ñoo ngi jël paquetu cigarette bi di ci def ay images yi nga xam ne mara day taali te yéen it en tant que société civile yéen a ngi ci mbedd bi ma foog ne communication bi gën naa yaatu waaw mais xam nga loolu lépp dëgg la wante li ma la wax rek mooy que xam nga euh, su fekkoon ni loi bi dañ ko appliquer. Mhm. su boobaa daañu gis les conséquence ou en tout cas les euh, vraiment euh, avantage euh, application bi bu ñu ko defoon tey jii daañu gis ne que am na am na am na vraiment lu am solo lu mu ciy indi. mais tey mhm. jii mais loi bi appelé wu la la loi n'est pas appliquée. Mhm. dans la mesure que la loi n'est pas appliquée ñu ngi bàyyi nit ñi ñuy toog leen neex chicha bi foo dugg mi ngi mi ngi mi ngi tàkk ah. xale yi ñu ni wéy tey ji seen initiation au tabac c'est à partir de sept ans. Mm-hmm. mais ça veut dire que donc le tabac il est aussi toujours aussi présent dans nos pays que li mu fi nekkee woon donc tux bi dafa gën a yokku. Mm-hmm. loolu franchement il faut que nit ñi xam ko. Mm-hmm. il faut que nit ñi taxaw ci. te loolu non seulement ñu ngi ciy ñu ngi ciy euh, woo euh, les les autorités religieuses. Mm-hmm. mais ñu ngi ciy woo aussi aussi vraiment euh, sunu sunu sunu sunu président le président Macky Sall. parce que moom aussi c'est un père de famille yaakaar na ni que dana dana sensible ci combat bi ñuy mené au fond moom sax sensible na ci parce que moom moo tax ñu am loi. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Amadou Moustapha Gaye nga jiite LISTAB. mais maa ngi leen di gërëm leen sant. di mm-hmm. ñaan aussi. Mm-hmm. que les médias la presse ñu gën ñu jàppale ci combat bi parce que li ma la wax rek combat bi ñun suñu combat ñun ñëpp la. du combat listab rek du combat euh, Jean wala Paul euh, mais combat ñëpp la na ci ñëpp jàpp rek ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant.